yow salaamaaleykum salaamaaleykum téléspectateur de Sénégal 7 point com ñu ngi nii bu comeback show bu Omzo Dollar ah de Dollar Valley show ñu ngi nii ak ma man Wadi aka serious business hey bro loo xam si tey jii. Pino. Euh, d' abord euh, ñu ngi nuyu gars yëpp di bëggee les téléspectateurs de cette chaîne. Euh, di bég ci teewaay bi parce que man Omzo c'est c'est c'est un ami c'est un frère euh, c'est un voisin depuis plus d'un mois mi ngi may woo ma waaye di xam nga concert bi du micro kenn xam nga quand c'est important c'est toi donc il faut nga ñëw def ci affaire bi ma ne ko booy écoute lépp lu ma ci mën nay jàmm parce que man je salue xam nga tout initiative euh, euh, nu mu tuddati tout initiative yi nga xamante ne dafa nan lañ koy waxatee sax le mot m'échappe challenge. voilà initiative boo xamante ne dafa am challenge yëpp xam nga ñun dañuy saluer loolu te gis ni tey xam nga à l'entrée tout à l'heure maa ngi ñëw di dugg si di gis rang bi ma ne mais qu'est-ce qui se passe te dara amagul donc euh, c'est c'est un pari acquis quoi franchement chapeau à Omzo chapeau à toute l'équipe de Buzz Lab et toutes les personnes qui ont travaillé autour de l'organisation ñu leen di bégge bu baax a baax mm-hmm. tu vois ba pare képp koo xamante ne franchement aya nga tey mm-hmm. ñu ngi lay ñaanal xam nga yàlla defal li nga xamante ne moo gën ci yow mm-hmm. c'est le hip hop Galsen qui gagne. ana saaga ndey ci hip hop wax ma rek ana saaga ndey ci hip hop am na ñoo xamante ne dañ koy def erreur moo leen di ci dugal am na ñoo xam ne dañ koy def parce que colère instant instant le colère bi ñuy dund à l'instant moo leen di ci dugal am na ñoo xam ne nag dañ koy def parce que c'est juste pour foutre le bordel mais ku conscient dëgg hip hop ci boppam boo ko buggee tënk ci benn phrase mooy le mouvement de l'intelligence. yaa ngi dégg c'est le mouvement de l'intelligence donc na boo nekkee na xam nga ci ba parler du hip hop y a HIP espace HOP y a HIP trait d'union HOP y a HIP HOP collé ñett yëpp bu ci nekk am na définition képp ko comprendrewul tegal micro bi dem sa yoon parce que xamal na hip hop bi moomoo ko donc tey ñi ngi fii Buzz Lab moo aye Omzo Dollar the comeback show with a serious business dañ koy ñëw ibbi ci kanam tout à ba mu xeeñ saxaaral saal bi gars yi bégee c'est le hip hop qui nag bu ñu kenn sonal ah, gis ngeen Galsen Hip Hop Awards nu mu demee woon waa léegi loo ñuy waajalaat. Euh, troisième édition rek nappacax. <laughs> troisième édition euh, instant yi nii s'est déjà lancé là-dessus ñi ngi xool xam nga yéen euh, quels sont les MC qu'il faudra sélectionner pour euh, différents cyphers yi on va essayer de faire aussi benn cypher ouest africain avec des pays de la sous-région c'est-à-dire benn MC gabonais benn MC guinéen benn MC ivoirien benn MC sénégalais mauritanien gambien ñoom ñëpp ñu boole leen xam ne xam nga affaire bi xam nga tôt ou tard il faut ñu yaatal ko xam nga faire profiter d'autres personnes loolu c'est très important xam nga dëgg la Galsen la am mais dina am loo xamante xam nga il faut nga séddoo ko ñi nga xamante ne pays voisins parce que ñooñu dañoo yàgg teg Sénégal bët même su fekkee tey am na ñoo xam ne ñi ngi naan xam nga y'a d'autres pays yoo xamante ne dañoo raw wala dañoo dépassé ci quoi que ce soit mais am na loo xamante ne la source du hip hop africain c'est le Sénégal loolu kenn du ko bañ. mot de la fin. Euh, mot de show.